góorgóorlu it ba ñu xam ni c'est équipe boo xam ne koo ci présenté Sénégal yi rek moom rek mat na lañ ko doyee mooy porter un projet pour le Sénégal parce que soo gisee yu mel nii am dañuy dem ba jàpp ni y a projet qui émerge mais suñu daggee bopp bopp ba rek projet boobu jeex moo tax dynamique bi war a changer Sénégal man chaque fois j'ai l'habitude de dire que je ne veux pas être président de la République je veux être dans une équipe qui va changer ce pays bu boobaa au crépuscule de ma vie j'aurai la satisfaction de dire que sama loxo ngi ci woon bokkoon naa ci xeex bi changer réew loolu nag ñu ngi ciy tàllal loxo ñëpp rawatina nag bés yu ñàkk je que mbébét yi ñu amoon ay at ci gannaaw Euh, projet yi ñu esquissé woon fii sëñ bi bëgg naa ñu liggéey ci sérieusement ñu liggéey ci sérieusement ba yàlla may ñu en tout cas ci at yi di ñëw ci weer yi di ñëw ak échange yi ñu war a aborder yëpp yàlla may ñu mun a jàppante li ma wax autour de principes et de valeurs et autour de projet communs ñu jàppante pour ce pays di leen gërëmaat une fois de plus ci sama tur turu parti bi turu peuple Sénégal yi di wax nit nit ñu tertoo fii dafa fees suñu xol parce que chaque fois su ma demee fenn xale yi dañuy génn en masse fees fa del nit ñi dañ mënaan yow de xale yi bëgg nañ la trop waaye amaguñu âge de vote may leen mais c'est pas ça le plus important parce que xale bu la bëgg xamal ndeyam bëgg na la bàyyam bëgg na la te it ñun nekkuñu dans une course de vitesse c'est vrai on est pressé pour le Sénégal et pas pour chaque fois je dis nous on peut encore saa yu yàlla tuddee ñu xam ne noonu la amaana yàlla du mës a tudd waaye est-ce que le Sénégal peut attendre c'est ça la question est-ce continuer à vivre comme on est en train de vivre à reprendre les mêmes erreurs ou même à faire pire que ce qui existait may leen nag comme nekkuñu ci course de vitesse bu la xale yi bëggee war nga am mën nga am yaakaar hmm. ndax xale yi bi ñu génnee ci élection dama ne gars yi ñi la tranche 14 17 ans qui n'avaient pas pu voter en 2019 vont tous voter te ku jël tranche boobu rien ci école yeeg collège yeeg lycée yi il font 2 millions 800 tranche boobu ma ne suñu responsable jeunes yi dem leen liggéey ci tranche boobu. parce que ñoom ñëpp bëgg nañ te ku leen accompagner ba ñu xam seen devoir civique dem inscrire jël seen carte d'identité ñoom rek il faut faire la différence te ñooñu dañ fi ñëw fekk yeneen xale yoo xam ne amoon nañu déjà 18 ans en 2019 2024 ñu war a am 22 ans nekk ba léegi ay xale te li ci ëpp ànd nañu ñun ci gis-gis kon. en 2019 leur carte d'identité et ce qu'on n'acceptera plus dans ce dootuñu nangul kenn muy tànn kan moo war a nekk candidat coorte rek loolu moom c'est fini waaw kan su amee dix sénégalais ñu bàyyi en rente te du seen coobare waaye administration moo leen gàllankoor loolu moom dina jaar lu mais sénégalais bu bëgg a woote euh, des dix de du m 2 kon sëñ bi vraiment lii moom dafa fees sama ko parce que jàpp woon ma jàpp na woon sax dinañu reconnaître waxuma laa nag ndax daara it kenn du fi miti donc xalaatu moom sax dinañ jóg def acclamation boobu ñuy ñaan yàlla muy doon barke kese ci ñoom ak ci ñun di ñaan yàlla daara ji yàlla jàppal leen si baax a baax a Euh, di wax tamit ni moom mii bokk na ci ñi jëloon initiative les religieux def initiative euh, euh, médiation recevoir naa leen sama kër ñu waxtaan bu baax a baax a baax may rafetlu taxawaay boobu xam naa ni bu ko defee it am na ci seen ndigal ak seen autorisation voilà mu ngi ñu defal seen xel dëgg la loolu daal laa ci bëggoon ci lu gàtt di remercier ñëpp ci seen accueil di El Hadj Malick mooy dogeeg si mooy suñu chargé de communication euh, euh, dafa matul nag El Hadj Malick déjà il toujours en retard. bi bi bi moom bi moom moom c'est l'exception qui confirme la règle dafa xaw a doy ah waaw dafa xaw a doy waar rek ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, président honorable Hadj Malick euh, ak ki mu àndal ñu ngi leen di wax welcome Mame Malick il de la direction de travaille avec l'OMIDI ñu ngi leen di nuyu euh, te di leen ziyaara di leen wax ni welcome da ngeen fi seen bopp fekk fi seen bopp monsieur le président discours bi nga xam ne bii moom nga wax en ce qui me concerne c'est la continuité de la bataille que je mène je mène depuis J'ai fait 68. J'ai fait le juin, j'étais au cœur de l'action à la place Soweto. Sànni ma bombe lacrymogène kër Ousmane Diagne lan ma fekk ak Niass y avait Macky y avait Tanor d'ailleurs am na foo ko si Lamine Niass dina si benn bandam ñoo sànni ñu ñetti bomb lacrymogène ñoom ñu toog foofu ak xale yaanu noonu ñoom sonn ñoom ñoom ñoom sonn donc c'est dans la continuité de cette bataille-là lorsque j'ai voté non pour la levée de ton immunité parlementaire les autres ils ont préféré ne pas part au mais moi je trouvais que c'était beaucoup plus politique que de dire non parce que c'est enregistré dans les archives de l'Assemblée nationale bi ma génnee journaliste bi song ma ma wax leen ni j'ai eu un sentiment de sidération et j'avais l'impression d'assister à une guillotine et ce que j'ai fait et ce que j'ai dit c'est la continuité lorsque ils ont arrêté Khalifa Sall. Le président nous a réunis. J'étais dans la direction de Benno Bokk Parce que quand même, j'ai eu un parcours euh, très sérieux, très proche avec le président Macky Avec des gens de Benno Bokk Yakaar. On a fait toute la campagne électorale, lui nous présenter avant le premier tour et après, entre premier et deuxième tour, fii la ñëpp ñu fi woon ñoom ñëpp ñu fi woon ñoom Ousmane Sané et tout ça ñoom Abdoulaye Fall ñoom ñëpp ñu woon si et c'était tous des gens issus des assises nationales et que y avait le bras politique des assises nationales qui n'existait pas soo waxee ñun ñun ñu ñu politique. j'ai créé des unions ñoom ñëpp ma euh, réunir te hasard amul te la ñu célébrer le centième anniversaire.